asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 ñu amaat mbégte di ànd ak yéen ci seen émission SOS santé di waxtaan ajuma ju jot ci lépp lu ñal wàllu wérgu yaram te ñu am euh, kontaante di ci dalal ki nga xam ne moom mooy docteur Ousseynou euh, Badiane moom moo nag euh, gàddu lépp loo xam ne jëm na ci wàllu vaccination moom lañ ko dénk ca ministère de la santé et de l'action sociale. donc ñu koy euh, jaajëfal déjà ci disponibilité bi naka waxtaanee tey nag sujet bu am solo di vaccination di wàllum ñaq ak yooyu euh, dañ koy may rek mu nuyoo ak mbokki auditeurs yi balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. Euh, jërëjëf soxna Oleymatou donc ñu ngi nuyu auditeurs Rewmi FM yëpp. di leen ñaanal yenn jàmm. Mm. donc di la gërëm si ñëw bi nga ñëw. pour euh, ñu waxtaan ci li nga xam ne nii moo jëm ci wàllu ñàkk yi ndax ñàkk yi dafa nekk loo xam ne lu am solo la ndax euh, olof dafay faral di wax naan fagaru bala nga lakkale donc euh, ñuy wax ci français mieux vaut prévenir que de guérir donc loolu moo tax ñakk yi am solo parce que dafay tax day tax surtout ci xale yi nga xam ne dañ leen di ñàkk mu mën leen a fànqal ay feebar yu baree bari yoo xam ne amoon na ay jamono feebar yooyu doon na indi jafe-jafe ak gàllankoor yu bari di faat xale yi ci lu bari soo jàkk yi nag tax na yooyu yëpp dellu ginnaaw ba nga xam ne nii eh, eh, xale yi léegi lim bi ci daan faatu wàññeeku na bu baax a baax donc euh, permettre que ñu mën a eh, màgg ci jàmm te loolu tamit dafa am solo pour développement réew mm. parce que réew avenir u réew mooy xale yi donc su xale yi nekkee seen wér-gu-yaram su baaxee rek dañuy mën a am yaakaar mm. donc loolu moo tax ñàkk yi am solo trop trop trop eh, ñuy ñaax aussi eh, bor ñi parents yi pour ñuy respecter aussi ñàkku xale yooyu donc fexe ba li ñu war a jël si ñàkk yëpp ñu jëkk jël ko ba mu mat bu ko defee yàlla mën na leen a aar musal leen ci xeetu jàngar yooyu nga xam ne eh, dina leen dal te buñ ñàkkoo mën na leen cee aar Euh, voilà ñu gis ne wàllum ñàkk wax nga ko dafa am solo parce que dafa bokk ci lu ñu naan fagaru te fagaru je pense que ni euh, ñëpp euh, d'accord nañu ni tey moom mooy li nga xam ne ci lañ war a gën a taxaw ndax feebar yi metti na te tamit traitement yeeg prise en charge yi benn réew attanu ko moo tax tey prévention dafa am solo moo tax vaccination am solo wax nga ko ba tax na tey nguuru Sénégal dafa jël ay koppar yu bëri wax ngeen ko ñett milliards quand du lu ndaw. état dugal na ko ci li nga xam ne moom mooy vaccination tey lan nga ñu mën a wax ci financement bu takkoo noonu ak tey euh, nu ngeen koy jëfandikoo. waaw nguur gi euh, def na loxoom bu baax ci ñàkk yi boo déggee ñu naan trois milliards yooyu du du du lépp li ci nguur bi def. Mm. parce que trois milliards yooyu looyu pour yi xaalis bi nga xam ne si la ñuy jënd ñàkk yi. Mm. mooy trois milliards mais ñàkk yi du du jënd ñàkk kese. Mm. parce que boo jëndee ñàkk il foog nga dem ñàkk xale yi ñàkk yi dafa am fu ñu ko war a denc personnel bi ñàkk dañ leen di fay oto yi ñu utiliser frigo yeeg loolu lépp dafa li ñuy wax coût opérationnel donc loolu bokkul ci trois milliards yooyu donc loolu lépp tamit état bi da ciy def loxom mais li ñuy wax noonu trois milliards yi mooy contribution wu état ci ñàkk xaal li njëgu ñakk yi parce que aussi état booy xool ñàkk yi fi mu nekk nii boo ko xaymaa lépp lépp lépp li ñu war a jënd presque mat na huit milliards jàpp neuf. Mm. donc état bu joxee trois dafa am yeneen euh, partenaires yu koy jàppale surtout Gavi. Mm. l'alliance Gavi ñoom ñooy jàppale réew yi nga xam ne amuñu doole pour ñu mën a jënd ñàkk yi surtout ñàkk yi nga xam ne ñàkk yu bees la. Mm. parce que ñàkk yi dafa dañ am ñaari dañ ko séddale ñaari xaaj mooy li ñu wax vaccin traditionnel mooy ñàkk yi nga xam ne yàgg nañ fi lool. ñàkk yooyu daanaka li muy jar seeratul. Mm. ak les nouveau vaccins nouveaux vaccins mooy ñàkk yu bees yi. léegi euh, état yi dañoo souscrire woon si ñuy wax indépendance initiative d' indépendance vaccinale maanaam daal jéem a fexe ba jël ñàkk yi ñoom seen bopp ñu mën ko jëndal seen bopp mais ñu gis ne loolu pays yi nga xam ne seen richesse seen amuñu doole jotu seen loxo jotu seen i gramme mënuñu ko léegi ci loolu nag ci lañ créé alliance bi léegi Gavi li muy def mooy dëkk yi sa dépend seen niveau de développement boo jëlee dëkk bu mel ni Sénégal dañ ne ko léegi d'accord mm. léegi yow da ngay jënd vaccin yi traditionnel mooy vaccin yu yàgg yi léegi vaccin yu bees yi léegi ñun dañ la ciy jàppale maanaam su so su ñu xaymaa njëg gi daanaka yow su dee day jar day jar dix dollars yow deux dollars ngay joxe ñun ñu joxe huit dollars yi mm. muy deux pour cent muy vingt daanaka vingt pour cent quatre-vingt pour cent donc loolu boo xaymaa lépp nag Sénégal fi mu toll nii ñàkk yi dem na si huit ba neuf milliards léegi na état bi su joxee trois milliards. Ah, alliance Gavi moom mooy joxe li ci des. mais nag alliance Gavi bala moo joxe li ci des Sénégal day joxe cote paaram maanaam fi mu nekk nii Sénégal dafa war a jënd vaccin traditionnel yi mooy vaccin yu ñu yëkk yi mooy tuberculose beeg euh, polio ngas bi yooyu da ko war a jënd bu ko jëndee ba pare yu yu bees yi mu joxe ci cote paaram li ñuy wax cote paaram mooy wàllam. léegi saa joxe wàllam nag Gavi mot Gavi mottali ko. comme ça ñu mën a am vaccin yi ñu soxla yépp mhm. ñu gis ne programme bi quand lu lu yaatu la tey jii euh, xale bi bu mu juddoo ba bu muy toll ci benn moment bi am na vaccin yu bëri yoo xam ne daf ko war a topp di ko respecté est-ce que mun nga ñëw tey ci yi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a am solo surtout tey si ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu nekk ay yaay nga xam ne peut-être yeewuñu torop ci mbir moomu ñu gën leen cee gindi. waaw vaccin yi soo vaccin yi xale war a jël dafa am lu ñuy wax calendrier vaccinal mm. mooy maanaam dafa am lu ñu ko euh, tëralee mm. ci maanaam ci atu xale yi donc xale bi bi mu juddoo ba keroog muy am euh, ñaari at ba tamit yokkaat ci léegi sax beneen vaccin boo xam ne buy am juróom-ñeenti at moom lay jël donc chaque fois am na fu mu toll rek am na vaccin bu mu war a jël mi ngi koy commencé bu mu juddoo parce que xale bi bu juddoo rek ci maternité bi bala moo génn wala moo bougé dafa am vaccin boo xam ne bala moo am 24 heures ça veut dire que judd na tey midi balaa suba ci midi vaccin boobu war na ko jël muy vaccin contre hépatite B maanaam vaccin bi nga xam ne moom moo koy aar ci li ñuy wax hépatite B. soo gisee loolu ñu def ko mooy ne hépatite B dafa nekk feebar boo xam ne dafa garaaw te day wàllaate donc day wàllante diggante doom ak ndey maanaam jigéen ñi wérul bi su fekkee ne daf ko am su doom ji di juddu da ko koy wàll. léegi ñàkk boobu suñ ko koñ teelee ñàkk ci vingt quatre heures yi day tax même su yaay ji amee hépatite B moom du ko am. Mm-hmm. lu tax aussi ñuy bëgg di ñàkk xale hépatite B mooy ne gis nañu cancer du fois Sénégal ñi ko fi am genn wàll gi wala quatre vingt pour cent yëpp hépatite B chronique moo leen ko jox te dañoo gis ne si ñooñu quatre vingt pour cent yooyu boo jëlee tamit li ci ëpp. mooy ñi nga xam ne bi ñuy am hépatite B bi ci seen yaay lañ ko jëlee. donc pour bañ loolu am moo tax ñuy teel a ñàkk xale yi hépatite B à la naissance donc dans les vingt quatre heures. Mm. donc loolu boo xam ne nii maternité bu juddoo moo génn war ko ko ñàkk. buñ ko ko ñàkkul yaay ji ci boppam daa war a laajte lu tax ñàkkuñu ko xale bi comme ça dañ ko ko wax mu dem wut ñàkk ko parce que ñàkk bi fépp la am. Mm. bu fekkee ne sax fa mu wasinee nanguwuñ ko ko ñàkk feneen fa mu dem danañ ko ko ñàkk. Mm. loolu mooy premier vaccin bi. bi ci topp mooy vaccin BCG boo tam xale bi juddoo la ko war a jël mais boobu bu ko jëlul tamit mën na toog ba mu diggante boobu bi mu juróog ba am ñetti weer mën na ko fa jël ñetteelu vaccin bi muy jël bu juddoo mooy bi ñuy wax vaccin polio oral bi polio zéro boobu tamit mais boobu diggante bu juddoo ba fukki fan ak ñeent la koy jël su ko jëlul ba fukki fan ak ñeent ko mën a jël BCG bi aussi su ko jëlul ba ñetti weer dootu ko mën a jël hépatite bi moom su rombee 24 heures si la efficacité bi dina wàññeeku mais mën na ko jël. Mm-hmm. avant muy. kon yeneen ñi nga tudd noonu bu ko jëlul ci moment yooyu nga xam ne ci la ko war a jël après bu ko jëlee da koy indi ñaxital. wala du koy du koy indi jeexital ko dul amal njariñ. Mm-hmm. moo tax da ko dul amal njariñ hépatite B bi su ko jëlee ci 24 heures fan la njariñ bi di gën a yokkoo mais su ko jëlee après dina am njariñ mais njariñ bi day wàññeeku. voilà léegi nag su jëlee ñàkk yooyu day toog ba xale bi mu am li ñuy wax. weer ak genn wàll maanaam six semaine six semaine bu ñëwee si lañ koy ñàkk pentavalent bon pentavalent bu ñu ko waxee du benn ñàkk en benn ñàkk la mais juróomi ñàkk ñoo nekk ci biir pentavalent bi donc bi si njëkk mooy diphtérie ñëpp xam nañ ko bi ci nag bi ci topp mooy tétanos beneen bi mooy coqueluche coqueluche mooy xuréet mhm. donc muy ñett mhm. ñu yokk ci. Euh, hépatite B bi parce que hépatite B bi su ko jëlee dafa war a jël ay rappel donc boo xoolee hépatite bi mu jëloon bi muy juddu ci ci ci ci pentavalent bi da ciy am rappelam mm-hmm. hépatite B boobu après ñu yokk ci beneen xeetu vaccin boo xam ne dafa nekk vaccin bi ñu wax euh, bi xeex feebar bi nga xam ne doomu jàngoro bi koy joxee bi ngi tudd hémophilus influenzae B hémophilus influenzae B dafa nekk doomu jàngoro boo xam ne dafa soxor parce que li jàppee xale yi mën na leen jox méningite mm-hmm. mën na leen jox aussi ay infection si ORL maanaam bakk ay ay pour angine wala ay otite maanaam nopp mm-hmm. wala mu jox leen infection pulmonaire mm-hmm. mais bu si nekk rek yooyu dafa garaaw te dafa boo bari woon muy faat ay gone mm-hmm. donc boobu da leen di aar ci doomu jàngoro boobu donc loolu mooy pentavalent bi buñ ko defalee pentavalent bi defal ko pneumo pneumo bi euh, comme ni ko turam kiyee donc eh, eh, day xeex doomu jàngoro bi ñuy wax pneumocoque pneumocoque nag bu ñu ko tuddee ñu bari dañuy jàpp rek pneumonie. Mm. mais effectivement gën na yaatu lool. gën na yaatu parce que pneumocoque boobu non seulement day joxe pneumonie mais day joxe infection yi ma tudd sànq yu ORL yi nopp yeeg put yeeg yooyu mais tamit day joxe méningite. Mm. te méningite yi gën a garaaw tamit ci méningite yi la bokk. donc soo jëlee pentavalent jël pneumo ñu yokk ci maintenant rotavirus rotavirus tamit doomu jàngoro la boo xam ne ni dafay joxe biir bu daw. ci xale yi mais biir bu daw boo xam ne dafa garaaw parce que biir bu daw boobu rapidement da koy jox déshydratation. rotavirus bi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy tudd. waa ñu koy tudd moom dañuy wax leen neex rek amuñu ci benn firnde <laughs> parce que rotavirus du ku tëb rek diagnostiqué ko parce que pour nga diagnostiqué rotavirus il faut nga def ay examen de laboratoire mm. te examen yooyu li ci ëpp Albert Royer lañ koy defee donc ñeneen wax ay rotavirus dañoo xamul li ñuy wax mm. parce que rotavirus bi c'est pas aussi simple que ça ensuite xale yi nga xam ne jël nañ seen ñàkk ñooñu pratiquement rotavirus bi du leen jàpp. Mm. donc feebar la boo xam ne du ñuy faral di ko dégg donc rumeur yooyu fan la fan la jógee. bon rumeur moom xaw ma fan la jógee mais xam nga fi mu nekk ak internet beeg yooyu moom ku nekk da ngay fu la information yi moom ku nekk da wax rek ku nekk jël mais amuñu benn information bu fiable bu ñu mën a wax ci loolu. Mm. buy wane loolu te yaakaaruma tamit mën na am te gis nañ ñi parce que dafa am surveillance li ñuy wax surveillance sentinelle ñoo xam ne dañuy fi Albert Royer loolu mooy seen liggéey chaque xale bu ñëw foofu bu am jaare dañ koy jël seet ko ndax rotavirus bi amul gis nañ ne wàññeeku nañ bu baax a baax a baax te ñoom joxewuñu benn information buy wane ne dafa yéegaat temps yi te ñàkk yi aussi ñu ngi koy continuer di ñàkk te couverture yi ñu am xale fukki xale yoo jël juróom-ñeent yi daanaka ñàkk nañ leen donc loolu je pense que li ñuy wax fake news. <laughs> loolu la mais du la am donc bu ñu ko ñàkkee rotavirus donc waxoon naa pneumo wax euh, pentavala wax rotavirus ñu yokk ci maintenant polio. Mm-hmm. donc muy loolu ñett ñe ñàkk yooyu lay jël su amee weer ak genn wàll muy six semaines mais ñàkk yooyu yëpp bu si nekk pratiquement dañ koy tollanti. Mm. donc tollanti bi mooy bu amee dix semaines. donc ñaari weer ak genn wàll donc yooyu lañ koy tollanteel. Mm. maintenant su amee ñetti weer ak genn wàll tamit dañ koy tollanti mais rotavirus bi kenn du ko tollanti parce que boobu ñaar rek la ci war a jël. Mm-hmm. léegi bu ñëwee yooyu ñu tollanti ko pentavalent bi pneumo bi ak polio bi bu ñu ko tollantee yokk ci maintenant beneen bu ñuy wax vaccin polio inactivé muy vaccin polio bi nga xam ne piqûre la bokkul ak toq yi. Mm. donc boobu aussi pour yokk. kaaraange xale yi par rapport ak polio bi la. donc yooyu mooy yi muy jël ba am ñetti weer su ko defee nag su amee lool yeneen rendez-vous pour ñakk yi day koy am su amee juróom-ñeenti weer foofu lañ koy ñàkk li ñuy wax RR muy rougeole rubéole maanaam ñàkku ngas bi ak fièvre jaune. donc juróom-ñeenti weer yi ñu ñàkk ko ko comme RR bi dañ ko war a tollanti ñu bàyyi ba mu amaat 15 mois mu dellu si ñu tollantil ko ko. rougeole rubéole bi suñ ko ko ñàkkee nag ñàkku xale yi maanaam ñi nga xam ne amaguñu ñaari at foofu la ñuy waxee ne matal na ko su ko matalee nag pour le moment programme bi foofu la yemagum ci xale yi léegi beneen biñ ci yokk mooy bu amee juróom-ñeenti at ñu ñàkk ko maintenant bi ñuy wax HPV euh, boobu mooy bi aar xale yi ci bu ñu màggee ëllëg mm. ci cancer ah, butu njurukaay donc yooyu mooy ñàkk yi nga xam ne moom lañ amagum fi mu nekk. cancer butitu njurukaay parce que quand lu yaatu lañ ci lañ ci mën a wax mais dañuy des ci sànq yaa ngi ko tudd gis nañ ne feebar la boo xam ne yàgg na di jural laago ay nit yu bëri mais tey Sénégal wax na ci sax élimination. am na tam yeneen feebar yoo xam ni yéen a ngi wax ni élimination am na ci ay tétanos à la naissance ak yu demee noonu donc tey jii ci yan euh, maanaam critère daal ngeen di sukkandiku tey pour wane ne feebar bi vraiment éliminer nañ ko est-ce que élimination bi savet dire que ne amatul benn benn benn ka wala exactement ci lan ngeen di taxaw. waaw <coughs> c'est que ci xeexu feebar yi dafa am ay hmm. étape xam nga koy waxee sax ci wolof mooy. ay ay ay jéego. Hmm. maanaam feebar doo tëb tëb rek ne dama koy faagaaga ree mu jeex fi donc da ngay commencer d'abord li ñuy wax contrôle maanaam contrôle. mooy jéem a fexe ba feebar bi ñu xam dayoom. képp koo xam ne feebar bi jot na ko ñu mën a xam tey Sénégal ñaata nit la fi feebar bi dal wala ci àddina bi ñaata nit la fi feebar parce que bala ngaa mën a xeex dara da ngay xam <laughs> nu mu toll. nan la dooleem toll ak fan la nekk. donc loolu mooy première étape bi contrôle bu ñu paree ci contrôle bi ñu ne léegi dañuy def li ñuy wax élimination élimination boo ko waxee ci français day mel ni danga koy far. mais du si santé publique élimination du loolu élimination mooy dañ fexe ba noot ko maanaam yóbbu ko ci benn niveau boo xam ne dootul doonati problème de santé publique maanaam su doon ci kii ñu ne dañ koy yóbbu quatre appuis waaw mm-hmm. ah, du dem ba quatre appuis bu demee ba foofu nag ba nga xam ne xam nañ ne léegi noot nañ ko léegi nañu xool ndax feebar boobu dafa nekk feebar boo xam ne mën nañ ko far définitivement walla mënuñu ko far définitivement parce que tamit du feebar yëpp lañ mën a far définitivement su dee feebar boo xam ne nag dañ ko mën a far définitivement si la ñuy wax éradication donc sooy xool maladie bi ñu njëkk a éradiqué ñu ngi koy wax variole variole mooy ñàmbal defe naa ñu ñun ñi nga xam ne at yi suñuy at bariwul ñun xamuñu ko parce que 1980 mhm. lañ ko éradiqué mais vaccination moo tax ñu éradiqué ko donc biñ ko éradiquer sax ci lañ ko wax ne mais vaccination am na solo boo xam ne warul yem rek ci dëkk yi am doole parce que temps vaccination bi taxu ko tasaare noonu ci dëkk yi donc ci la OMS UNICEF na léegi il faut ñu créer li ñuy wax programme élargi de vaccination cosaan ngi foofu la donc programme élargi de vaccination mooy programme boo xam ne day yaatal ñakk ñi pour ñëpp jot ci parce que dëkk yi amuloon doole jotuñu ci donc moo fi indi ñàkk yi donc ci lañ gis ne ñàkk dañ ko war a yaatal parce que am na solo mais non seulement am na solo aussi am na njariñ parce que mën na faagaagal ay feebar yu bari. Mhm. donc bi ñu amee victoire boobu ci ñàmbal ñu ne mais pourquoi pas polio. d'autant plus que polio temps yi sonal na nit ñi gis nga ko ñu bari la fañ nañ laago nañ polio ma mhm. ñu ne nañ leen song polio bi ñu songee polio ñu ne woon donc éradication bi 1988 la ñu lancé woon initiative bi ñu ne balaa 2000 lañ ko war a éradiquer mille jot jéego yu am solo am na ci mais éradiquer wuñ ko tey ñu ngi 2020 donc 20 ans après. Mhm. résultat bi ñu bëgg muy éradication amaguñ ko mais pays yu bari polio amatu fa éliminer nañ ko. Mm. donc ñaari dëkk ñoo des yoo xam ne ñoo tere àddina bi ñu éradiquer polio pour le moment fi mu nekk nii mooy. Nigéria non Nigéria génn na ci. mooy Afghanistan. Mm-hmm. ak Pakistan. Mm-hmm. donc euh, loolu mooy jéego yi nga xam ne def nañ ko ci polio donc Sénégal sooy xool. 1998 lañ mujjoon a gis polio kaw polio. donc bi ñu ko defee ñu toog ay at di surveiller di ñàkk gisuñu polio ñu def parce que pour nga pour ñu wane sa dëkk certifié ne a polio amu fa organisation mondiale de la santé ñoo koy def. Mm-hmm. donc ñoom dañuy def seen i enquête yëpp. ñoom ñooy saytu ñooy mbir mi. léegi ñun bi ñu toogee ba nga xam ne jaakaar nañ ne amatu fi ñu defar suñu dossier. yóbbu yóbbu yóbbu ko OMS ñoom bi ñu ko saytoo ba pare seen ko certifié 2003 2004 di moins. ne Sénégal considere nañ ko comme pays boo xam ne amatul polio. mais malheureusement gis nga 2018 comme ñun certifié woon nañ amuñ fi mais am ne dëkk yi ñu waroon mi ngi fa doon am. feebar bi duggaat fi bi mu fi duggaatee nag ñu kar ko daal ci def xeex bu am solo daal koy noot ci lu yées ñetti weer. Mm. donc feebar bi génnaat fi donc moo tax Sénégal perdrewul sax. certification boobu. donc boobu donc boobu depuis 2010 boobu nga xam ne 18 cas lañ amoon boobu ba léegi amatuñ benn cas. Mhm. donc Sénégal mooy pays francophone Afrique de l'Ouest boo xam ne moom lañ njëkk a certifié moom polio amul. polio amatu euh, mhm. mhm, loolu ci polio la. polio donc mi ngi polio dafa def toll ci phase d'éradication yeneen maladies yi ci topp mooy surtout tétanos néonatal mooy euh, feebar tétanos bi nga xam ne doon jàpp liir yi. ñu nga xam ne lii si ëpp si toujours ngénte bi la leen doon daaneel. ñu koy ñii naan di dafa am ko am wee parce que xale bi da doon say yooyu. ñu am na sax ñu fi tëm tam <laughs> dëmb ndax loolu. mais ñëpp xam nañ ne tétanos bi la woon te loolu pratiquement gisatuñ ko fi parce que loolu Sénégal tamit 2011 jàpp nañ ne la ko éliminer mais tétanos kenn mënu ko éradiquer donc élimination bi day nekk loo xam ne nii. du lu définitif c'est-à-dire que soo yàcc soo li nga defoon ba éliminer ko soo ko bàyyee rek mu dellu siwaat mooy ñàkk yi. boo yàccaaxalee rek mu ñëwaat ndax feebar yi day mel tey dem benn moment jékki-jékki ñëwaat. waaw parce que mooy tànk que éradiqué wuñ ko day mën na ñëwaat. mais aussi du comme li ma la du yëpp la ñu mën a éradiquer parce que tétanos kenn mënu ko éradiquer parce que doomu jàngoro bi ci suuf lay nekk. Mm. donc pour nga éradiquer ko mënoo rey doomu jàngoro <laughs> que bu dee polio doomu jàngoro bi si nit lay nekk bu ko boo ko dindee ci ba kenn amatu ko mu jeex. de la même chose que ngas muy rougeole. Mm. mais rougeole ñu ngi toll ci élimination. Mm. te rougeole pourtant euh, keroog am na yeneen cas yoo xam ne feeñ na. fële ca Vélingara Ferlo aussi. non juróom-benn cas si je ne me trompe. yi du Sénégal rek àddina bi yëpp ren. de deux mille 2019 fépp la am cas donc li ma am si pays ay France xam ko Sénégal. Mm-hmm. parce que tout simplement dañoo demoon ak ñàkk yi ba nga xam ne feebar bi daanaka demoon na ba amatul nit ñi sàggane ñàkk yi donc pays surtout pays développé ñu bari di xas ñàkk yi di ko ŋàññ ñeneen ñu bëggatuñoo ñàkku moo tax après bi ngas bi comme ngas bi éradiqué wuñ ko woon ñu bàyyi ñàkk yi ñàkk yee tere woon nit ñi di ko am ñu bàyyi ko ñàkk bi ngas bi dellu si donc fi mu nekk nii li muy rey ci France ak ci yeneen pays rey ko sax Sénégal parce que Sénégal quoi qu'on nit ñaa ngi ñakku mais am na suñu dëkk yoo xam ne ñu ngi suñu wet tamit ñàkk yi demamu fa noonu donc feebar bi dafa bari donc de temps en temps foofu lay jóge dugg ci réew mi bu ñëwee fekk fi ñoo xam ne dañoo cosaanoo ci réew yooyu tamit ñëw fii bañ a ñàkku donc ñooñu mu jàpp leen wàllaale nag tamit suñu xale yi nga xam ne sàggan nañ fii ba ba ñu moo tax euh, ñàkki euh, rouge euh, ngas bi dafa nekkaat luy lu feeñaat si àddina bi maa ngi doon joxe keroog exemple Île Samoa foo xam ne ni matuñu sax deux cent mille habitants rougeole bi dugg fa rey fa juróom benn fukki nit ak ñaar ba nga xam ne dëkk ba dañ koo tëj ñaari fan kenn du génn kenn dem fen donc euh, parce que li ko waral mooy bi ñu xoolee dañoo xam ne couverture vaccinale maanaam ñi fa ñàkku ci rougeole mat téeméer boo jël matuñ sax fanweer donc loolu tamit ñu bu ñu sàgganee ñàkk yi tamit loolu moo fiy dellu si waat. surtout ak porosité frontière ak yooyu loolu dinañ ci ñëw enfant zéro dose mooy yéen a ngi koy wax que ni tey am na ay résultats yoo xam ne am nañ lan mooy enfant enfant zéro dose. enfant zéro dose. Mm. parce que loolu ci enquête lañ koy xamee. Mm. maanaam bu ñuy enquête dañuy jël xale yi nga xam ne am nañ benn at jàpp ñaari at ñu càmbar ci ñooñu yan ñàkk lañ jël donc zéro dose mooy bu ñu jëlee ci xale yooyu téeméeri xale. yoo non ña maanaam waaw bu ñu jëlee téeméeri xale. ci ñi am at jàpp ñaari at ñu càmbar leen xool ci ñaata xale ñoo ci musta jël benn ñàkk loolu mooy zérosis mooy xale boo xam ne ba mu juddoo ba bi muy am entre benn at ak ñaari at. musta jël musta ñàkk musta jël benn ñàkk. Mm. loolu mooy zérodose donc loolu biñ ko càmbaree deux booy xool dans les années ay 2011 téeméer boo jëloon dina si am ñetti xale. yoo xam ne non juróom-ñetti xale yoo xam ne mësuñoo jël benn ñàkk mais ak projet pro euh, euh, kii yi ñu def progrès yi ñu def maanaam góor-góor li ñu def tax na ba léegi loolu dafa jafee gis xale boo xam ne du judd na ba am benn benn at ba jàpp ñaar te mësta ñàkk loolu daanaka amatul parce que enquête bi ñu def 2017 dañoo wan léegi il faut nga jël euh, di nga jël ñeenti téeméeri xale door cee gis kenn koo xam ne mos na ñàkk. Mm-hmm. alors bu njëkk ba téeméer boo jël doon nga ci gis juróom-ñett. Mm-hmm. te loolu ak développement média yeeg yooyu nit ñi di gën a yeewu sensibilisation bi di yokk moom moom moo ko waxal aussi. Mm. ak tamit eh, eh, ñiy ñàkk tamit góor góorlu gi góor góorgóorlu. di fexe ba fu xale nekk ñu fekk la fa war laa mën a ñàkk. Mm. voilà euh, ci ci loolu sax dañuy ñëw ci li nga ne mooy réticence parce que euh, wàllum ñàkk dafa doon loo xam ne dafa yàgg am ay rumeur ak ay idées yu demee noonu yoo xam ne daf si yàgg am ak i croyance ay dañuy bañ nit ñi am doom yu bari rek yeneen ak yeneen lu ne dégg nañ ko euh, ci wàllum vaccin mais tey mu mel ni mu ngi mu ngi xaw a wàññeeku sànq yaa ngi wax ni. Europe ak yenn réew yu développe yi tendance boobu dafa mel ni lu fa commencé ñëw peut-être pour d'autres raisons mais tey ñu gis ne affaire bi dafa xaw a renversé tey fii nii ñun suñu réew yi ñooy gën a réceptif ci li nga xam ne moom mooy wàllu ñax yenn réew yi dem bay xaw a am lu ñuy lu ñu ciy tiit lan lan moo waral loolu. waaw xam nga euh, euh, mbirum ñàkk moom coowul yàgg na cee bari mm-hmm. mais ci pays développé yi la gënoon ëpp. Mm-hmm. que dëkk yi. parce que fii moom loolu daanaka mën naa wax lu bees la fi. mais si pays développé du lu bees chaque fois dañ doon su ñàkk surtout ñàkk bu bees bu amee ku nekk dañ ciy wax lu nekk lañ ciy wax. mais léegi xam nga fi mu nekk nekk ak internet moom daanaka ak réseaux sociaux yi daanaka frontière amatul. donc lu xew Europe lu xew États-Unis ñëpp dañ ko dañ koy xam te tamit Sénégal dañoo mën a toppandoo te ki ñuy gën a toppandoo mooy France te France mooy dëkk bi nga xam ne fa la problème mu ñàkk ëppee mm. coowul ñàkk. fa la ëpp moo tax ñoom dem nañ sax ba gouvernement bi daal di jël mesure daal di voter loi daal di rendre obligatoire vaccination. parce que li ñu gis mooy ne dañoo demoon ba finalement parent yi di caaxare ñàkku xale yi ba comme li fa am nii si ngas bi am fa. te ay feebar yoo xam ne demoon nañ ba gisatuñ ko muy dellu si donc ñu jël seeni i matuwaay mais euh, ñàkk. fii Sénégal c'est vrai que am na ci ay ay rumeur ay coow mais du lu am solo trop. Mm. parce que aussi nit ñi defe naa ne li naan weddi gis bu bokk ci mooy ñaari ñu ñàkk yi moom kenn werante wu ko xam nga. Mm. ñaari ñu ñàkk yi ñëpp gis nañ ko mais liñ leen li ñuy tuumaal ñàkk yi kenn indéegu ci preuve man de ba mooy commencé liggéey ci ñàkk ba léegi li ma si mës a dégg yëpp amul kenn koo xam ne mën nañ ma si indi preuve tangible ne ma lii eh, ñàkkee ñàkkee ko indi comme mm. comme problème. donc euh, moo tax nit ñi dañuy préférer dem ñàkku ji que déglu ay ay ay ay rumeur parce que li ñuy wax yooyu yëpp booy xoolee boo tuuti xel rek boo ko amee nga analyser ko da xam ne leen den yéen wu ci maanaa mm. euh, ñàkk yi ñu doon wax naan day tere xale yi am doom <laughs> mais actuellement femmes yi am doom yëpp mooy femmes yi nga xam ne ñu ngi judd après 1980 ñi nga xam ne ñàkk woon nañ bu doon loolu la femmes yi kenn doo ci amat doom ensuite ñoom ñëpp fa Sénégal fii femmes yi kay li def kay mooy dem di def planification familiale pour bañ am doom léegi su fekkoon ne am na ñàkk boo xam ne day teree am doom kon kay ñuy def planification nga xam ne bëgganduñu am doom sax duñu am problème da nga dem rek nga jël <laughs> ñàkk bi après nga toog sa kër. mu yàgg nekk ay rumeur yoo xam ne. <laughs> Mhm. yaa ngi wax ni tegul tegul fen donc euh, yéen ngi yaa ngi wax sànq ne ak li nga xam ne moom mooy rougeole euh, daanaka 5000 euh, cas moytu ngeen ko depuis 2005 ak léegi mu nekk mu mel ni kon def ngeen ci ay jéego yu bëri parce que li nga xam ne moom mooy ngas aussi doon na loo xam ne feebar bu yàgg sonal tout tànk yi la tamit. waaw xam nga feebaru ngas moom peut-être que ñu ñuy néew ay at ñoo ko xamul mais ñi nga xam ne xaw nañoo am tuuti <laughs> yàgg nañ fi tuuti xam nañ ngas. ngas dara bu ñëwaan ci dëkk daanaka du fa bàyyi benn xale man daan nañ wax ne sax nit ñi bala nga daan compter ñaata doom nga am da nga daan xaaral ba ngas bi jàll. Mm-hmm. parce que wóorul ndax bu ngas bi jàllee doom ji dina dund. Mm-hmm. wala du dund. Mm-hmm. donc boo ñëwoon ci hôpitaux yi surtout malade infectieux dafa amoon pavillon même spécial boo xam ne pour xale yi ngas dong lañ ko doon def parce que la feebar boo xam ne ñëpp ko xamoon saa que euh, xale bu ngas sax jarul woon médecin naan kii dafa ngas yaay ji mooy ñëw ne la sama doom dafa ngas. Mm, ndax ñëpp a ko xam. donc ñëpp a ko xamoon ñëpp a xamoon gravité bu ñu demee ba gisatuñ ko ñëpp xam nañ ne euh, du du dara euh, ñàkk yi kese la parce que amul leneen lu ñu fi def parce que ngas du feebar bu ñuy faj. Mm. <laughs> amul traitement donc prévention la am mooy ñàkk ñakki ñàkk yi bokk na ñàkk yi gën a efficace donc moo tax boo xoolee Sénégal avant 2003 lu mu bon bon bon chaque année doon nañ am vingt mille cas vingt mille cas mooy. Euh, ñaar fukki junni ñaar fukki junni. Mm. cas si ñaar fukki junni yooyu quart bi muy cinq mille yi dañ doon décédé mm. maanaam chaque année lu mu bon bon cinq mille xale doon nañ faatu. ndax rougeole avant 2003 donc 2003 bi ñu commencé def li ñu wax contrôle rougeole bi programme de lutte accéléré bi maanaam bi ñu commencé di xeex ne dañuy accéléré dañuy yokk taral xeex bi ngir ngas si lañ commencé def campagne yi yokk vaccination <coughs> de routine bi ñu njëkkee def campagne bi 2003 li njëkk a gis mooy at boobu nombre de bi dafa diminuer de plus de 90 pour cent mm. at yi ci topp ñu ne dañuy dem sax ba Sénégal yëpp ñu ko xaymaa duñu am ñaar fukki cas 2004 2005 la xale gëj a faatu ci rougeole maanaam juróom 5000 yi doon dee par année soo jëloon a partir de deux 2003 ay 10 la woon ay 2004 ay deux je pense 2000 2004 cinq benn cas. Mm. depuis loolu amatuñu benn cas. donc chaque année mën nga wax ne éviter nga lu mu bon bon ju juróomi junni. Hmm? ci ay cas de décès yoo xam ne ay xale yu waroon faatu la te faatuñu donc loolu am solo la mm. donc vingt mille cas nga dem ba am douze cas wala man mënatul sax cent cas loolu ça veut dire que combien de cas nga nga nga éviter donc ay xale yu waroon feebar te feebaruñu donc loolu mu nekk ay euh, yu am solo yoo xam ne nii loolu ñàkk yi doog moo tax loolu mun a am na ay médecins yoo xam ne sama classe yi ñoo xam ne ñu bari dem nañ ba xamat mënuñoo ñoom seen bopp mënu bu ñu gisee ngas mënuñu xamuñu ne ngas la parce que mësuñu ko gis. donc may fàttali rek mbokk yi yéen a ngi déglu seen émission SOS santé ci Rewmi FM 97.5 tey ñuy euh, dalal docteur Ousseynou Badiane nekk njiital programme élargi de vaccination euh, yaa ngi wax ci sa interview ci li nga xam ne moom mooy cartographie des. Euh, communauté difficile yenn ci ay gox yoo xam ni peut-être da ngeen fa ay poche de résistance ak yu demee noonu est-ce que mën nga que cité ngeen c'est ça fu ci mel ni Touba. waaw xam nga euh, bu njëkk ba euh, nit ñi dañoo farlu woon maanaam soo amee sa doom mu war a ñàkku da nga koy boot yóbbu ko mu ñàkku ji mais dem nañ ba ay jamono ñu gis ne nit ñi dañoo xaw a tayal ci loolu bon peut-être que du tayeef wala dara mais peut-être que jafe-jafe àddina yi sax moo leen ko indil. donc bu ñuy wax ay poche foo xam ne dafa difficile d'accès ñu bari dañu yaakaar ne ay bërëb yu sori la wala foo xam ne kenn mënu fa dem mais li ci ëpp ëpp ëpp ci dëkk yu mag ngi lay nekk mm. parce que boo jëlee Dakar Touba jël Thiès Kaolack soo xoolee yi nga xam ne dañoo dëkk ci banlieue bi ñu si bari amatuñu jot sax pour yóbbu seen doom ñàkk dañuy xëy fajar dem liggéey yóbbaale seen doom yi bu ñuy ñibbi ci guddi donc heure bi ñu ñàkk pratiquement sax du leen fa fekk. Mm. donc am ñoo xam ne sàggan la am ñoo xam ne tamit dañoo amul jot léegi li ñuy def mooy loolu nag léegi au lieu ñuy toog di xaar nit ñi dañuy wax ne donc ñi nga xam ne ñëw nañ noonu dañ leen di encourager ñuy ñëw mais ñi nga xam ne nii mënuñu ñëw il faut ñu yem a comprendre lan moo tax mënuñu ñëw parce que aussi yenn saa yi sax poste kii bi dina la la jege mais peut-être amoo paas sax pour dem fa wala boo fa demee rang bi dina yàgg te yow mënoo xaar ak donc ñu ne dañ foog ñuy analyser district sanitaire bu nekk il mu analyser xool ñan ñoo ñàkku ñan ñoo ñàkkuwul ñi nga xam ne ñàkkuwuñu lan moo tax ñàkkuwuñu ñu jéem a xool lool bu ñu ko xamee ñu ñëw waxtaan ak communauté yooyu xool lan mooy seen problème par rapport ak ñàkku yi bu ñu ko xamee nag ñu jéem a xool ensemble maanaam waxtaan suñu biir ba xam ne nañuy def ba yombalal leen ñàkk yi soo gisee moo tax dakaar léegi da ngay gis ci quartier bi ci poste de santé bi au lieu mu toog ci poste de santé bi muy ay jours yoo xam ne day dugg ci biir quartier bi di ñàkk. Hmm. nga gis léegi am na ay centre de santé xam dañuy ñàkk samedi. nga gis léegi am na ay euh, quartier yoo xam ne nit ñi dañ fay dem ay 18 di ñàkk loolu lépp pour que rek jox chance yu ñëpp ñëpp ku nekk am chance pour sa doom ñu mën ko ñakk donc loolu ñuy def dakaar ci la ñuy def ci dëkk yu mag yi dëkk yi ndaw ndawaan yi nga xam ne nag ñoom problème mu. Euh, distance la ak problème infrastructure foofu tamit dañuy def li ñuy wax ay stratégie avancée ak ay stratégie mobile maanaam dañuy programmer ak ñoom ci weer bi ay jours yoo xam ne dañ leen koy wax ñoom ñu toog équipe vaccination yi ñoo fekk leen fa daal leen nekk mhm. nga xam ne en général ay jeune la ñuy nekk ñu leen di gis ñuy sillonné euh, quartier yi di ñàkk ak yooyu di kii ñooñu mu nekk ñoo xam ne euh, forcément dañuy nekk ay personnel de santé wala matu ko juste que dañ lay former rek non ñàkk yi ñuy wax ni ci PV de routine bi. Mm. maanaam yi ñuy ñàkk tous les jours loolu personnel de santé ñoo koy ñàkk. Mm. donc su équipe yi waree déplacé wu infirmier yi ñoom ñooy déplacé wu daa nga ñi nga xam ne qualifié nañ. Mm. ñooñu ñooy dem ñeneen yi ngay wax porte à porte yi ngay wax. souvent boobu biñ ko daan def mooy vaccin polio yi nga xam ne toqal rek la amul mm. pikiir mm. xam nga toqal moom jarul jarul nekk infirmier war a dara ñu la waxee nawee nooy bëse pour toqal ak ñaar toq nga war a joxe mm. buñ la ci formé war nga ko mën a def donc loolu mooy campagne doon def polio wala vitamine A wala yenn garabu saar xam nga loolu moom soxlawul pour nga nekk infirmier pour mën ko joxe mais bu dee ñàkk yi nga xam ne dañ leen di pikiir la yooyu ay ñoo koy def donc même bu war waree déplacé wu infirmier yi ñoom ñooy déplacé wu pour dem nekk. Mm-hmm. Euh, bi nga xam ne moom am na ay euh, marqué na l'actualité si jamono yi moom mooy cancer du col de l'utérus peut-être fan yii mais am na période boo xam ne dañ ko doon wax bu baax. parce que vaccin bi mu ñëwee c'était vraiment une aubaine parce que bu ñu gisee ne feebar boobu bëri na li muy lor ci ay ci ay soxna Euh, tey jii mu nekk loo xam ne sa accessible pour jigéen yi nga xam ne ay xale lañ ñu koy mën a def euh, yan résultat ngeen ci am tey jii est-ce que nit ñi ñu ngi ciy wuy si bu baax. waaw mooy li a la wax rek mooy chaque fois boo amee ñàkk bu bees rek li si ëpp coow li day bari. Mm. mais ana coow li ana liñ ci doon wax yëpp. Mm. ñi doon wax naan ñàkk bi baaxul boo ko ñàkkee day def lii day def lii day def lii ana ana li mu def. entre bi ñu ko introduire octobre deux mille dix huit commencé pratiquement lañ ñàkk. année deux mille dix neuf rek rek si année deux mille dix neuf ñàkk nañ plus de deux cent mille fii deux cent mille mooy ñaata ñaat téeméeri junni xale est-ce que mos nga see dégg benn xale buñ ne ñàkk nañ ko am problème. dégguñ ko yenn pour l'instant. Ah, yéen doon wër di wax naan ñàkk bi. ñàkk bi lii. ñàkk bi journaliste waruñu di wax ñun dañuy jottali juste ay propos. Ah, ni ngeen jottalee ne gaa yi ne woon na ñàkk bi baaxul. Ah. léegi nag jottali leen ne gars yi lañ doon wax amut ñàkk bi baax na dara nekku ci. parce que ñi ni ñaa ngi ñàkku Sénégal jëm kanam. donc loolu yëpp mooy li ma la wax rek saa li ñu doon wax yëpp teguwul fenn ñàkk bi HPV bi contre cancer du col ñàkk ci boppam au niveau mondial. ñàkk bi dafa nekk rupture maanaam dëkk yi ko bëgg am sax mënuñu ko am Sénégal dañu am chance teel ko dugal ñu ne léegi pays yi nga xam ne dugal nañ ko ñoom ñoo liy prioriser pour leen ko jaay mais yeneen dëkk yëpp bëgg nañ ko mënuñu ko am ñun ñii diggoon nañu ay ñàkk nañu dañ leen jox ñàkk ngeen def li ñuy wax campagne de rattrapage parce que normalement ñàkk yi entre 9 ans 14 ans lañ amuñu woon ñàkk pour ñàkk ba 14 ans ne ñu léegi dinañ leen jox ay ñàkk ngeen def campagne pour ñàkk ba 14 ans ñetti at ak nii ñu koy dig mënuñ ko jot chaque chaque année ñu ne ñu année bi ci topp ba léegi sax waxatuñu kañ naan de façon fi mu nekk nii ñàkk amut donc li ñu mën mooy comme commencé ngeen comme mënuñu leen a arrêté dañ leen jox ñàkk pour ngeen ñàkk xale yi am 9 ans donc ci loolu lañ toll. donc fi mu nekk nii programme bi mi ngi dox nit xale yi ñu ngi ñàkku ñi bëgg a moom ñi ngi ñàkku foo dem n'importe quel jour di centre santé poste de santé ak ñi ñuy fekk ci école yi ñu ngi leen di ñàkk te ñàkk bi am na solo boo xam ne nii. buñ la ko ñàkkee xale bi mën na ko aar ëllëg si feebaru bu tuuti njuurkaay te loolu xam nañ feebar bu tuuti ku ko xamul dégg nga gravité parce que li ci ëpp ñu muy jàpp fii dañuy dee parce que amuñu moyen faju te non seulement lañ diagnostic bi day tardif donc loolu mu nekk ñàkk boo xam ne tey boo ko naroon jënd benn bi ñaari façon ñàkk la ñun bi ñuy ñàkkee mooy bi ñuy wax quadrivalent bi mm. moo gën a cher boobu daanaka dose benn dose bi quatre-vingt quelque mille lay jar beneen bi mooy bivalent bi dose bi mu ngi jar dix huit mille cinq cent presque dix neuf mille donc loolu ñëpp jotewuñ ci léegi nag su gouvernement bi fexee ak ay partenaires am ñu jàppale ko ba loolu ñu yombal ko ba yaatal ko ba ñëpp mën cee jot wallaay ñëpp dañoo waroon na daw. léegi ñi nga xam ne passé nañ at boobu na bëgg ko def ñoom lan mooy solution ci ñoom. ñoom ku dem jëndi. Hmm. dem jëndi. dem jëndi daal mooy si sa. <laughs> ah boo ah, ngeen ñàkk ngeen dem jëndi jëndi ñakk bi parce que dem nañ sax ba wax ne léegi même vaccin bi même ñi nga xam ne sëy nañ sax mën nañ ko jël. Mm-hmm. mais problème bi mooy ñooñu ñetti doos la ñuy jël au lieu ñaar. Mm-hmm. donc ñi nga xam ne mosuñu sëy ñoom ñooy jël ñaari doos tant que boo de moo tax daal ñu de bu dee da am ah, ñi amagul 18 ans. te mosuñu sëy nañ jël ñaari dose mm. ku passé 18 ans da nga jël ñetti dose mm. mais ñun ñàkkuñu nag ñi passé 18 ans ko ñooñu moom ku ci bëgg a ñàkku da nga dem nga uh, ubbi sa gafaka waaw bi daal xool bi mm. daal di ñàkk euh, mais euh, ba 10 ans boo ñëwee ñu la mm-hmm. am na fu mu toll nii nag euh, benn feebar boo xam ne dafa ñu ngi koy dégg muy coronavirus tur bi sax dafa xaw compliqué coronavirus voilà muy voilà mu rey fukk ak juróom-ñaari doomu aadama bu ma juumul mu nekk na feebar boo xam ne Chine la fe la baaxoo la jóge daal fa lañ ko njëkk a dégg mais mu ngi law daal ba OMS sax def nañ ci li nga xam ne mooy état d'urgence ak yooyu jéem a xool nu ñuy def tey jii boobule feebar lan lañ ci mën a peut-être euh, tiit ak d'ailleurs feebar boobu sax exactement lan la pour nga mën ñu ko expliquer. waaw coronavirus bi c'est que moom maladie yi ñuy wax maladie émergente yi maanaam ay feebar yu bees yoo xam ne ay ay doomu jàngoro ñuy wax ay virus ñoo koy joxe mais virus yooyu li ci ëpp mooy dañuy def li ñuy wax mutation comme virusu grippe bi. Mm-hmm. maanaam dañuy jekki-jekki xam nga virus day moom capacité mooy loolu moom day jekki-jekki changé xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof mais changé euh, patrimoine génétique am ADN bi mm-hmm. ba. day soppaliku day soppaliku voilà. léegi xam nga corona coronavirus yi amoon na fi bañ mooy li ñoo doon wax SRAS bu njëkk ba 2009 la woon 2010 bu ma ràpp bu ma fàtte ko Chine préwet na fa lu bari bari bari mais yàlla def na yegg siwul woon Sénégal mm. donc mooy li ma wax c'est bi fi mu nekk nii nekk dañoo nekk euh, si addina boo xam ne amatul frontière donc feebar boo xam ne am na benn si dëkk ci àddina bi rek dañ koy alerter àddina bi yëpp mais alerte bi nag du tax nag ñu tàggale ko seen sago wala di teppi teppi di daw c'est-à-dire que feebar bi am na fa déjà c'est bien que ñu teel ko déclarer pour que ñoom déjà foofu ñu jël ay mesures pour que feebar bi bañ a génn donc li ñuy def mooy comme si bi Ebola bi amee ak dañuy renforcer li ñuy wax surveillance épidémiologique bi maanaam xam nañ ne feebar bi feebar bi kii lay jàpp dënn donc genre pneumonie lay doon mais am na ay signes yoo xam ne day tax ñu mën ko xame donc li ñuy def mooy. signes yooyu mooy yan. boobu pneumonie ki ñuy wax mooy da am problème mu respirer. surtout problème mu di sëqat. parfois ngay saqat surtout ngay xaxtandiku surtout mën nga tembe xaxtandiku ay deret ak yooyu donc mais li muy li tax muy faat surtout mooy détresse respiratoire mooy nga dem ba fatt waaw hmm. donc léegi dañuy def li ñuy wax système de soins boo xam ne képp koo xam ne surtout sa aéroport yi dañuy def yi ko képp parce que feebar boobu day ànd ak fièvre donc ay détecteur de de de température ñoo xam ne képp ku am fièvre rek ñu isolé la hmm. jéem xool yow ndax du da nga am yeneen signe wala dara xool ndax lan nga am parce que et tamit ñi nekk ci aéroport yi de gis suñu gisee kuy sëqat wala kuy am yenn signe aussi ñu signalé ko. Mm. Euh, pour hôpitaux yeeg yëpp tamit ku si dem présenté même symptôme yi aussi ñu def ki ñuy wax suspecté la daal maanaam dañ naan lii mooy cas suspect la bu ko defee ñu def investigation pour xool ndax feebar boobu moo la dal. Mm. wala feebar su la dalee am na ay mesures yoo xam ne yooyu la mais defe naa ne Sénégal bon yeggaguñu pratiquement si niveau d'alerte boobu. mais euh, comme ni ma ko waxee. fagaru moo gën te ñun moom nekk nañ ci réew boo xam ne. li njëkk a def mooy frontières yi moom dafa xaw a technique yi dañ koy jox. personnel de santé bi yëpp pour wane ne lii maladie bi lii la. Mm. nii lay manifesté woo boo ku gis kaa. bu mel nii ak nii lii ak lii nga war a def ainsi de suite donc loolu mooy kii pour renforcer maintenant li ñu wax surveillance bi comme ça ñëpp xam ne ku gis lii war nga am na euh, ay matuwaay yoo war a jël. Mm-hmm. maa ngi wax léegi ci frontière yi parce que loolu tam bokk na ci euh, xeex bi yi ngeen war a yi ngeen di def je suppose peut-être pour li nga xam ne moom mooy feebar yi parce que gis nañ ne tey euh, peut-être aéroport yeeg yooyu dina am surveillance benn bi comme li nga wax léegi. mais yeneen yoon yi yoonu suuf seeg yoon yeneen ak yeneen surveillance bi xam nañ ne du demee noonu euh, tey ji yan defi ngeen am ci wàllu woowu. bon de façon euh, sunu dëkk yi moom frontière yi moom ça n'existe que de nom maanaam <laughs> ay tur rek la. Mm. parce que ñiy jaar ci aéroport ba ngay xam mais ñiy jaar ci suuf si moom mënoo leen xam. Mhm. mais bon euh, li ci am solo mooy am na dëkk yoo xam ne par exemple comme feebar bu jógee Asie Asie moom boo fay jógee moom faaw nga jaar <laughs> ci aéroport yi. Mhm. mais li ñuy sonal mooy feebar yi nga xam dafa nekk suñu dëkk yi. Mhm. nekk si dëkk yi nga xam dañu wër. ñu ngi wax ngas bi mais ngas bi booy seet. dëkk yi am na si benn dëkk boo xam ne si suñu wet la nekk fa la jógee. donc dëkk boobu boo naan frontière ma rek Sénégal doo xam fan mooy frontière bi. frontière bi dañ koy tudd rek mais foofu la neex frontière amu ci fépp la nit ñi di jaar bon ma keroog maa ngi koy wax tamit nee naa ne frontière dañoo jàpp ne ci frontière réel bi la fële mais en en réalité frontière bi day day déplacé wu ba ci biir dëkk bi. Mm. parce que am na dëkk yoo xam ne bis moo fay jógee ñëw wàccee nit ñi fii Médina wala stade Amitié wala. Mm. feneen donc frontière en réalité c' est à l' de Dakar parfois. Mm. on a yi am nañ fi ay cas yu feeb ngas yoo xam ne dañoo wàcc ci oto bi rek maanaam bi ñu jógee seen dëkk ñëw wàcc ci lañ jubal dem dispensaire directement ça veut dire ñoom bi ñuy feebar fekk na seen dëkk lañ feebare jóge foofu ñëw. mais bu ñu ñëwee fii dañ naan Sénégal euh, voilà ngas ngas bi Sénégal ko moom fekk. foofu ne dafa jóge feneen. voilà li ñuy wax kaa importé la. Mm. mais malheureusement Sénégal lañ koy compter. Mm. bu ñëwee nag ñooñu ñoo ñëw xam nga bu ñëw seen mbokk yi la ñuy seet bu fekkee ne ñoom ñàkkuñu seen dëkk seen mbokk yi nekk fii tamit am habitude yooyu tamit yi seen habitude dëkk yooyu maanaam ñoom lànk bañ a ñàkku donc bu ñu ñëwee seen xale yooyu bu ñu ñëwee fekk fii ay xale yoo xam ne ñàkkuñu. wàññi leen nas mu takkarnaase léegi nag comme dañoo dëkkandoog tamit ñun suñuy ay mbokk yu sàggan ñoo xam ne tamit seen doom ñàkkul ñu wàll leen ko loolu mooy lawal feebar bi mu nekk benn chaîne bu dooy wax euh, dernier point bi may ñëw mooy projet d'usine de fabrication de vaccin boo xam ne Diamniadio euh, donc je pense que ni 40 millions de doses lañ ci la ci Christophe Bigot waxoon ci jamono yu mu koy annoncé tey projet boobu fan fan la toll ah problème de man wax yàgg de yàlla man <laughs> maa ngi koy doog a dégg mm. <laughs> parce que en tout cas gouvernement bi. ñun moom au niveau du ministère de la santé amagu benn projet de d' établissement usine vaccin boo xam ne fi mu nekk mi nga en cours. Mm-hmm. ko ma xam daal mooy Institut Pasteur bu Dakar. moom bokk na ci ñi njëkk commencé def vaccin parce que vaccin bi ñu wax vaccin fièvre jaune. Mm-hmm. fii lañ ko njëkk a di defar te ñoom ñu ngi ko di defar vaccin boobu. Mm-hmm. voilà mais à boobu moom Sénégal si si boobu la exactement mooy bu institut Pasteur bi. non institut Pasteur bi parce que même. Euh, peut dañ koy yokk wax wax nañ ci conseil des ministres. Euh, ma ne peut boobu dañ koy dañ koy yokk. Mm. mais déjà fii ni à Dakar ñu ngi produire de vaccin bi depuis yàgg na ay at at. Mm. donc léegi Diamniadio lañ ne dañ fay implanter. waaw waaw waaw moom mën naa nekk. Mm. parce que déjà. Euh, vaccin bi nga xam ne moom la institut Pasteur di di vaccin vaccin boo xam ne bu OMS homologué la. Mm. donc nga xam ne dañ koy exporter même si yeneen dëkk yi même rarement sax lañ koy utiliser fi Sénégal li yëpp dañ koy exporter ci yeneen dëkk mais peut que capacité bi parce que ñi fièvre jaune ñi koy defar ci àddina bi bariwul. Mm. booy xool ay ñett wala ñeent laboratoire rek ci àddina bi yëpp moo tax su problème amee rek vaccin bi day gaaw a manqué. Mm-hmm. waaw léegi nag xam naa ne pour yokk production bi moo tax ñoom ñu bëgg Euh, jam ñaajo mhm. mais loolu aussi lu baax la. Mhm. voilà euh, yegsi nañ ci njeexitalu émission bi euh, peut-être nga ñëw ci lan mooy fu mu toll nii seen i perspective au niveau du programme élargi de vaccination. waaw programme bi boo gisee def na ay jéego yu am solo mais programme bi dafa nekk tamit programme boo xam ne dafa xaw a jafe parce que li ko jafeel mooy résultat yi ngay am par at rek lay doon parce que at mu nekk am ay xale yu juddu. te xale yooyu bu ñu juddoo da leen war a ñàkk tey booy xool bu ñuy mesurer say performance dañ naan ñaata xale nga ñàkk ci at maanaam ñu ne la téeméer boo jël lu mu néew néew néew néew war ngaa ñakk juróom-ñeent fukk yi waaw donc même ren boo xale juddu yëpp soo rag soo ñàkkee soo leen ñàkkee déwén zéro pour cent ngay commencé waat parce que da ngay recommencer à et puis euh, pour def ay résultats ci ñag bu fekkee ne da nga am ay euh, ay résultats yoo xam ne nii baaxul moo gën a yomb nga def ay jéego yu yu pour nga am résultats yu baax. Mm-hmm. léegi boo xasee ba am résultats yu baax nag problème bi mooy nan ngay def ba résultats yu baax yooyu nga bañ a <laughs> nga maintenir ko maanaam bañ koo bañ ko amati lu ko yées mm-hmm. mais aussi di ko yokk. chaque année donc ñun fii la foofu lañ toll parce que dem nañ ba nga xam ne pratiquement chaque année xale yi boo jëlee téeméer dinañ ci ñàkk prix de juróom-ñeent fukk mais problème bi mooy fi mu nekk nii nag li ñuy wax euh, bu dee fukki xale nga ne ñàkk naa juróom-ñeent yi léegi nan ngay def nag ba xale boobu nga xam ne mooy mu lay rëcc ci chaque année nga fexe ba jot ko loolu nag mooy li gën a jafe ba pare tamit ñi nga daan ñàkk juróom-ñeent yooyu tamit nga bañ ko yées comme li nga wax nga ngi changé sa doxalin. mooy li nga doon wax sànq si communauté difficile d'accès yi ak yeneen stratégie de vaccination parce que bu fekkee ne même chose ngay def munoo espérer am résultat yu yu différent donc il faut que nga changé sa sa sa ni ngay ni ngay sa doxalin donc ci loolu lañ nekk fi nekk nii pour xool maintenant en plus de lan liñ doon def noonu lan lañ ci mën a yokk ba nga xam ne nii non seulement Euh, résultats yi du wàññeeku performance yi du wàññeeku mais aussi ñi nga xam ne ñi ngi leen di raté ñuy leen di leen bañ a ñàkk nan la ñuy def ba ñooñu ñu leen di ñàkk loolu nag dafa laaj ay euh, moyens yu bari bi ci njëkk mooy vaccin yu doy donc mu bañ a am rupture de vaccin donc fu ñu toll vaccin yi di mat di doy mais aussi jéem a fexe ay di ñuy wax ay stratégie ay ay pexe yu bees yoo xam ne yi yu innovant la maanaam yoo xam ne xaw ma nañ koy waxee sax loo xam ne daal du bu wute naag li ñu daan def mm. loo xam ne dañ ko ci yokk pour di mën a di jot xale yi donc loolu dafay laaj xaalis moyen dafay laaj ay moyen de déplacement dafay laaj ay agent yu bees ainsi de suite donc laaj aussi ay équipement yu bees donc yooyu daal ci lañ nekk di ci góor góorgóorlu di gouvernement di def ci loxoom mais aussi sunu partenaires yi nga xam ne ñooy Gavi OMS UNICEF ak ñi mel ñoom di ñu ci jàppale pour que Sénégal bokk ci pays yi nga xam ne ci Afrique dañuy dem ba nga xam ne day naan xale pour gis fi xale boo xam ne ñàkkwul day jafe waaye tamit feebar yi tax ñuy xeex ñi xam ne moom la ñàkk yee xeex ñu dem ba dootuñu ko fi gisati. Mm-hmm. donc ci ci loolu lañ nekk euh, donc yooyu mooy jéego yi nga xam ne moom la ñu mébét pour def ko pour yeggale programme bi ci niveau boobu. Mm-hmm. docteur Badiane kon ñu ngi lay jaajëfal yegg si nañ ci. njeexitalu émission bi ñu may la rek nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi. waaw donc euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci déglu bi euh, di yaakaar ne tamit li ñu fi wax nii euh, dina leen amal njariñ su fekkee ne am nañu ci leeru tamit xam ne peut-être <laughs> ci olof bi olof bi léegi daa jafe parce que tubaab bi yàq nañu mais je pense que jéem nañu leeral. Euh, lu ëpp ci li nga xam ne nii moo am euh, importance ci ñàkk yi. te yéen tamit je pense que bu fekkee ne am na ay réaction ci auditeurs yi yoo xam ne am na lu leerul ci ñoom aussi bu ñu leen ko waxee peut-être ñun dinañ ci mën a dellu si indi leeral. di leen ñaax nag ci ñu gën a am fulla respecté ñàkk yi te bañ a déglu waxi bedd yi nga xam ne amul waxi picc ay waxi picc yoo xam ne ni da leen di tardeel. parce que gis nañ ne dëkk yi ko defoon yëpp de wér-gu-yaram bi dafa dellu ginnaaw. li ñuy wax yépp l'expérience bi woo wane na ne amut donc ñu bañ a sàggane ñàkk yi parce que ñàkk yi moom képp ku ko sàggane eh, di nga ko rëcc donc je pense que loolu moo am solo te comme xale yi mënuñoo yóbbu seen bopp te amuñu eh, mënuñoo bañ mënuñoo nangu donc parents yi ñoom ñooy bañ ñooy nangu ñoom ñoo gàddu responsabilité bi donc je pense que responsabilité bu diis la eh, te ñun xam nañ ci dara ndax euh, bi fi polier bi mujjee ñëw de mille 2010 gis nañ fi euh, koo xam ne nii dafa lànkoon a ñàkk doomam en fait moom du parce que sax sàggan ak dara mais moo bañoon mm-hmm. ne xale yi ay doomam duñ ko ñakk kenn ki polio bi jàpp ko ci man dem naa ba këram mais jooy sax def na ko mm-hmm. dafa mujj ànd ak ñun di dugg ci kër yi di sensibiliser nit ñi naan dañ ñàkk xale yi donc loolu je pense que lu war a éviter la. waxoon naa ko aussi ci cancer col bi boo fii ba lànkee ñàkk sa doom pour protéger ko ci cancer col bis bu màggee ñaanuñu ko yàlla su ko feebar bi dalee war ngaa mën a am courage taxaw ne ko doom kat man ma sàgganoon man maa la lànkoon a ñàkk ba lii dal te defaraa naa loolu benn waajur. bëggu ko mm. waaw donc euh, je pense que loolu daal mooy li nga xam ne moo ëpp solo ñu góorgóorlu ci ñun. amuñu sax doole buñ fajoo donc comme am nañ lu ñu mën a aar gratuitement ñu jëlagum loolu jàppande ci def naa ne moo ëpp solo. donc euh, di leen gërëm di leen sant tamit ñu lay gërëm di la sant mm. ci ci jotaay li voilà mm. di feddali suñu kóllëre di wax ne de toute façon saa boo leen bëggee am information rek. Mm. ñun euh, ñi ngi seen disposition pour jox leen information ñu lay jaajëfal bu baax a baax encore une fois docteur euh, seenu Badiane moom lañ doon dalal tey ci suñu émission SOS santé ñuy fàttali rek ne moom la ñu dénk li nga xam ne moom mooy wàllum ñax yi di kon programme élargi de vaccination ñu doon waxtaanee tey wàllum vaccin yi ak yenn ci ay jàngoro yeeg euh, jéego yi nga xam ne ñu ngi ko ciy def di ko jaajëfalaat bu baax a baax di leen jaajëfal yéen it mbokki auditeurs yi.